wasalaatu wasalaamu ala asrafil xalq sayidina muhammad sayidil awalin wal axirin wa ala alihi wa ashaabihi ridwanullahi taala alayhim ajmain mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen jaar di leen baalu xaq di leen ko baal di sàkku ci yàlla mi am njéggal yàlla ñu buur yàlla boole jéggal te nangu ñu suñu jaamu yàlla eh, de am mbégte ak kontaante lool ci ànd bi ngeen di ànd ak Dunya Production tey nag ñu ñëw seen naafila weeru koor ci guddi fukkeel bi ak juróom-ñett tey li ñu leen indil ci guddi fukkeel bi ak juróom-ñett mooy fukki raka ak ñaar raka bu nekk nek fatiha ben yon sabbi isma rabbikal a'la ben yon qul ya ayyuhal kafirun ba mu jeex qul huwallahu ahad ben yon so pare nga jël sa kurus nga def la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil asim temer yon nee fu place ñaanu kay la kep ko xamne julli nga julli googu mel nga ne ko xamanteni bi aji nga makka mel nga ne ko xamne umra nga mel ne ko xamanteni bi nga ko febar kon ñi ngi leen di sante bu baaxa baax di leen gërëm ci and bi ngeen and ak Dunya Production jërë ngeen jëf